ndax ñu dalalaat ko moom euh, Abdou Guèye euh, Alaaji Mor euh, ma bàyyi làkk moom ñu nar a àddu ci mbirum enjeu yi nga xamee ni moo nasu ci mbirum exploitation pétrole. waaw ñu am mbégte di dalal Abdou Guèye xam-xamam màcc ci wàllu woowu ci wàllu pétrole Sénégal nag depuis 72 ans mi ngi wut ñu ngi jéem a gëstu di xool segam am na fi démb nag la ñu bëral ni Euh, am na benn baril commencé nañ euh, baril boo xam ni euh, mooy premier barilu petrole boo xam ni génn na ci waaxu Sénégal yi ñu bëggoon la laaj rek effort bi topp un peu first oil boobu comme ni ngeen ko tuddee ci seeni jargon lan lan ci mën a xaar. merci beaucoup ci question bi donc comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi nuyuwaat képp ku toog ci plateau bi. mais également di nuyu képp ki nga xam ne ñu ngi seetaan ci biir réew comme ci bitim réew bon bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni mooy euh, découverte bi nga xamante ni annoncé woon nañ ko sax depuis 2014 donc dix ans après ñu tàmbalee exploitation bi je pense que mënuñu wax lu dul bon nouvelle la pour Sénégal bon nouvelle la lu tax ñu wax loolu parce que Sénégal soo seetloo depuis 1917 mhm. ñu ngi doon identifier ay indices en 32 ñu xaw am ay confirmation mais c'est en 1952 la ñuy démarrer véritablement les recherches les activités d'exploration donc bu ñu demee ba 72 ans après en 2024 ñu tàmbali suñu production première baril je pense que mënuñu ko considérer lu dul une bonne nouvelle pour le pays donc lu ñu ciy mën a xaar rek mooy euh, mën na am njëriñ ci Sénégal ndax lépp luñ ci mën a wax rek mooy mën a jëriñoo guñ ko ndax foog ñu exploité waat ko fi ak ñaar fukki ak juróom donc ci diir boobu nag ñaata lañ ci war a am ginnaaw ba yaakaar nañ ko tàmbalee ci at mi fii ak ay at lan lu ñuy jural loolu ñu ngi koy xaar. Mm-hmm. mais def nañ ay estimation gis nañ ni déjà coût bi rek li nga xamante ni jot nañ ko ci investir ci li nga xamante ni opérateur bi jot na ko wane mu ngi toll ci 4,9. milliards de dollars à 5,2 donc loolu boo koy xayma ci coût d'investissement tout simplement ci suñu xaalis dafay jege 3000 milliards kon fi ñuy investir 3000 milliards yaakaar nañu war nañ ko mën a am lu am solo loo xamante ne war na mën a contribuer si suñu économie. mais justement suñu xoolee répartition yi dañuy gis ni quand même euh, waa bitim réew liñ ca moom dafa bari. Euh, Sénégal pourcentage am néew ñu bari nag moo xaw leen jaaxal euh, suñu ko comparé ak réew yu mel ni ay Qatar ak Arabie Saoudite yu nga xam ne daanaka ñoom ñoom moom seeni pétrole. waaw c'est nag pétrole aussi nekk na sujet bu am solo bu ci waxtaan ndax euh, li nga wax nii dafa am contrat bu ko tënk ndax bu ñuy wax pétrole souvent dañuy utiliser deux types de contrat dafa am contrat bi ñuy wax mooy contrat de concession ak contrat de partage contrat de partage bu ñu koy wax dañ koy scinder en trois niveaux partage de production wala soit mu nekk contrat de service wala nga am contrat de joint venture mais ñun bi ñuy négocier contrat de partage de production la selon les termes du contrat parce que aussi foog nga xam fan nga am li ngay exploité maanaam bu dee pétrole wala gaz milliers yi duñ bokk donc coût d'investissement yi aussi day ute te ñun ci suñu code ak contrat bi nga xam ne dañ ko négocier dañ ni su fekkee def nañu découverte bi nga xamante ne dafa dépassé cinq cent mètres de profondeur surtout su fekkee ñu ngi ci géej gi loolu répartition bi ñoom dañ ko jàppee ci benn fourchette su ñu defee de zéro a cinquante mille par su fekkee dépasse nañ cinq cent Sénégal lu mu am day tolloog ay cinquante mille jàpp cent mille cent mille nag pour nga mën a cent mille baril pour nga mën ci toll ce qui veut dire que pour nga am vingt pour cent il fallait nga dem ba ci production bu tolloog cent mille baril jour léegi nag mën nga produire moins de cent mille barils jour ñaata pourcentage nga ci am da nga ciy dem ci ay quinze pour cent léegi nag li nga xamante ni moom la gars yi di posé deux niveaux la parce que booy wax contrat bi dafa am deux niveaux yu ñu koy analyser dafa am fu ñuy wax euh, le cost oil cost oil bu ñuy wax mooy le coût d'investissement mais avant loolu nit ñi dañ doon gën a tàmbali di wax les 10 pour cent maanaam la participation de Petrosen à 10 pour cent donc loolu bokkul ak partage ressource bi moo tax da ngay jëm a def la part des choses boo xoolee déjà ci contrat bi li ñu ci wax euh, Petrosen mi ngi léegi ci 18 pour cent ndax joge nañ ci phase exploration ñëw ci phase exploitation donc migré na ci 10 pour cent bi ñu doon wax mi ngi ci 18 pour cent mais bu ñëwee nag si partage de ressources loolu beneen niveau la si grille de production journalière bi lañ koy évaluer donc ñoom li ñu koy estimer bu ñu defee de zéro a 50 000 barils état mën na ba 15 pour cent bu ñu demee de cinquante mille barils a cent mille barils jour état mën na dem ba vingt pour cent léegi foofu nag moom lañu war a waxtaan ndax lu tax bu nekkaat enjeu toujours ñëw naa léegi ci li ma doon wax mooy contrat bi ñu am du contrat de concession contrat de partage donc ressources yi déjà Sénégal moo ko moom opérateur bi moom moo am capacité technologique am pour mën a ñëw investir. ci tout à fait. duñu duñu exploité amuñu moyens exactement loolu léegi le coût de l'investissement qui euh, loolu sax moom mooy définir moo tax moo waxoon léegi contrat de concession ñëw si contrat de partage bi. Mm-hmm. parce que mais léegi nag dafa am li nga xamante ne dañu sentir ni xew na faible ci côté Sénégal bu dee pourcentage bi. Mm-hmm. ndax dañuy wax en général qui peut faire le plus peut faire le moins. Mm-hmm. bu fekkee moom. dans la communication ñu ngi naan on va produire jusqu'à cent mille barils mm-hmm. depuis ñu ngi wax ci communication bi on parle que cent mille barils dans toutes les communications cent mille barils dépassé wuñ ko ça suppose que donc sur la répartition Sénégal mënul dépasser vingt pour cent mm-hmm. donc mën na nekk aussi benn défaillance ndax lu tax ma ni mën a nekk benn défaillance jëm nañ ko corriger ci avec le nouveau code pétrolier le fait que ñu appliquer le facteur R mm-hmm. foofu au niveau du profit oil vingt pour cent yi muy représente profit oil mais au niveau du profit oil dans le cadre du nouveau code pétrolier dañuy foofu état mënatul am li gën a néew quarante pour cent donc imagine ñu am vingt pour cent si projet bi nga xamante ne mooy projet bi ñu xam ni foofu kese la am pétrole ci mm. Sénégal léegi ñu amaat code bu bees boo xamante ne prévoir nañu bu ñu amaatee pétrole kenn waratul wàcc lu gën a néew 40 pour cent kon foofu war nañ ci waxtaan mm-hmm. xool ban possibilité lañ ci mën a def war nañ ci waxtaan foofu la ñuy des ndax contrat yi dafa am ñu génn ne euh, foo ñu xoolaat ko est yow xalaat nga nii loolu mën naa nekk ci jamono bi ñu nekk temba temb bon mën naa nekk may yombul mën naa nekk mais yombul ndax maa ngi def démb benn contribution bay wane l'exemple de Libéria muy amoon cent 102 contrat négociés am yu mu annulé am yi mu révisé am yu mu stabilisé. boobu en 2006 2008 2006 mais tey boo jëlee la cas du Sénégal dafa am li nga xam ne moo tënk déjà Euh, opérateur bi mooy contractant bi ak état de Sénégal. loolu tax ñu ne képp kuy signé signature dafa am solo trop trop trop ci contrat. ndax l' état est une continuité. da lay léegi nag ñun li ñu signé gis nañ ni nouveau régime bi avant ñuy ñëw yàgg nañu kaas li jëm ci révision des contrats renégociation des contrats mais nag dafa am risque ndax dañ ni ci contrat yi nga xamante ni moom la ñu signé dafa am ay principes yi war a tax. état mën a engagé wu déjà ci renégociation bu dee contractant bi respecté wul ay engagement yi mu jël bu dee démarré nañ production fayul li nga xamante ne moom la war a fay au bout de trois mois wala mu tàmbali exploitation au bout de un an mu arrêté te continué waatul lu yooyu état mën na ñëw mais su fekkee dafa nekk principe de renégociation am état bi ko njëkkoon négocier limité ko à 20 pour cent c'est vrai man jëlee l'ai dit que pour cent bi arrangé wuñu quoi qu'on puisse parce que partage de ressources lu tax sax ko mooy principe de contrat bi ku ko njëkk a innové c'est Indonésie ci moom ci logique bi daf doon jël 60 pour cent du profit oil 40 pour cent dem ci contractant bi des fois ñu renverser les tendances le pays hôte mën na am 40 pour cent le contractant di récupérer 60 pour cent donc ñun suñu ñëwee ci paramètre bi war a limiter wu déjà si seen communication sur 20 pour cent y a un pour à ndax contrat bi aussi il fallait ñu bàyyi xel ni c'est un élément très sérieux qu'il faut prendre en compte ñoom dans leur logique lan moo leen intéressé c'est les ressources pétrogazières ils ont tous les moyens pour extraire de ces ressources là mais nous nous sommes dans un espace espace boo xamante ne on n'a pétrole on n'a pas le gaz nous avons aussi d'autres ressources économiques et que si une fois on démarre l'exploitation forcément il y aura loolu dafa war a donc déboucher dans une négociation pour mën a corser les les avantages de l'État mhm. donc point boobu bu ñu ko nag ñun ñu bëgg négocier au même titre que l'opérateur qui ne vise que le produit pétrolier mhm. à la ñun dañuy léser parce que ñun ñooy pays récepteur mais est-ce que euh, contrat bi nga doon wax ñu renégocier ko fële ci Euh, Libéria ak mm. euh, Ellen Johnson Sirleaf est-ce que mën na nekk un cas d'école pour le Sénégal par exemple bien sûr parce que mais lépp ça négociation mais xam nga contrat bu ñu koy wax dan naa c'est une bataille d'experts ñi koy négocier soo seetle compagnie ñoom dañoo pare sur toute la ligne à tous les niveaux ils ont des experts dans la négociation nag foofu nekkuñu ñu di dóorante c'est des idées c'est une bataille d'idées léegi au même titre soo ko bëggee négocier état boo xamante ne amul expérience forcément dañuy sentir une asymétrie dafay am benn déséquilibre raison pour laquelle au départ les gens pensaient que c'est uniquement l'affaire de géologie alors que le contrat c'est un tout il te faut une considération économique une considération juridique mais également environnementale et autres parce que nous exploitons des ressources surtout si fi may wax mooy espace bi ñu la te tey on a compris on a commencé à voir les conséquences surtout au niveau du secteur de la pêche il peut ci ban condition lañ koy compenser yooyu aussi c'est des éléments yi nga xam ne dañ ko waxtaanee moo tax man j'encourage d'une part si c'est possible avec le nouveau régime ñu amorcer cette réflexion par rapport à la négociation mën nañu parce que ñun mën nañu dem ba élément bi permettre ñu atteindre 40 pour cent si on atteint peut-être une production journalière supérieure à supposons 200 000 barils jour mën nañ dem ci niveau boobu mais su fekkee dañ koy limiter sur cent mille barils jour tu ne peux plus que ñun bu ñuy def investissement yi une bonne partie ne vient pas du Sénégal ni de l' Afrique mmh. malgré tout on a créé des conditions pour régler un problème raison pour laquelle on a pensé la loi sur le contenu local mmh. mais xoolal investissement yi ñu def sur ça mmh. une bonne partie vient de l' extérieur alors kon ñun mënuñu ko capter waaw donc li ñu gën a mën a réfléchir c' est vrai que contrat bi dafa xaw lëj soo gisee man dama limité wu sax si benn partie moom mooy répartition des ressources mais les avantages de l' état fan nga koy jëlaatee aussi c' est au niveau du profit parce que profit oil bi état fa la am part mais état dafa amaat un représentant qui est la société nationale qui participe te gis ngeen léegi ci information yi dafa dem lebi xaalis ki ko lebal mooy opérateur pour que mu mën a assurer le coût d' investissement de ces 18 pour cent hmm. donc loolu dina ko déduire mën na si am nag yow d'autres avantages au niveau des impôts mais déjà ci kii yaa ngi wax ci bari nombre de batterie bari bari ni ñu mën a tirer par mais information bi ñu am c'est que le Sénégal est plus un pays pétrole bi taxu ko bari bari bari bari noonu tout à fait c'est vrai c'est vrai que bu ñu dellu see si découverte yi ndax découverte bi tax ñu bëgg a considérer Sénégal comme un futur pays pétro gazier c'est à partir des découvertes de 2014 au niveau de Sangomar. Là, on a quand même une découverte importante. L'évaluation de ces réserves, c'est de 630 millions de barils. Globalement, on nous parle de 1 milliard 30 millions de barils. Mais techniquement, quand on a du pétrole, c'est difficile de récupérer 30% des réserves. Ça, c'est la logique technique. Du coup, on fait une estimation. De l'autre côté,

ça peut aller jusqu'à 590 milliards de mètres cubes. donc globalement bi ñu seq ak Mauritanie on parle de millions euh, yu nga xamante ni de tonnes. de gaz la production waaw pour la production annuelle. par an waaw. oui pour mm. la production annuelle. la production annuelle est différente de la réserve. ok mais globalement quand on a quantifié. l'estimation de ces réserves pour le gaz ça tourne autour de milliards de mètres cubes de gaz mm. c'est très important loolu sax moo tax ñu définir d'autres politiques ko orienter un Euh, les centrales avec la reconversion pour diminuer un peu le prix de mm. l'électricité. yaa ngi ko doon junj sànq euh, côté environnement bi ku ne exploitation pétrole tamit dafay am yu muy affecté di ko laal géej gi nga wax sànq mais gis nañu itam ndox mi mun na koo laal naka noonu itam euh, pollution bi est jotul tamit ñu anticiper pour xool conséquences yooyu bu ñëwee nan nañ ko mën a teew. non anticipation déjà am na am na à travers les études d'impact parce que projet phase d' exploration na étude impact phase bi aussi def nañu étude d' impact mais loolu doyul parce que étude d' mooy outil bi ñuy permettre ñu mën a réduire les risques mais risques yi gën a majeur dans l' exploitation pétrolière ou gazière souvent mooy les cas d' de puits yi ñuy faral di assister et dernièrement cas yooyu ñu ngi koy gën a gis côté maire du nord mmh. marée noire marée noire s'il s'agit du pétrole mmh. mais soo seetloo en 2010 dans le golfe du Mexique il y cas de figure explosion d'une plateforme Deepwater Horizon et là ça a été dirigé par BP bi nga xam ne moo fi nekk là mënuñu woon obturer le puits donc trois mois ñu am déversement de ces bi mu nekk en contact directement avec le milieu marin mu créer donc benn désastre écologique loolu pour nga mën ko am mooy foog éruption am bu éruption amul mën nga am beneen forme de déversement accidentel wala soit ngay transporte produit mu créer explosion donc yooyu mooy risque majeur yi nga xamante ni du point de vue erreur humaine mën na arrivé ci projet yi mais assisté guñu ko et loolu souvent mi ngi ñëw ci moment de forage de puits et bu ñu xoolee projet bi nga xamante ne mooy Sangomar c'est vrai que dañ ko phasé pour la première phase la nekk nii on a foré 23 puits di jëm ci 24 puits heureusement alhamdulilah on n'a pas encore assisté ces types de cas et on le souhaite même pas 100 000 ay ay c'est du pétrole Euh, tey taxawaayu Petrosen ci ci ci wàllu woowu tamit war nañ ci taxaw tuuti. Hmm. ndax maa ngi dégg Woodside ñu ne ñoom pétrole brut bi dañ koy yóbbu bitim réew. Ah, ah, raffiné ko ah, indiwaat ko. loolu yi tamit euh, est-ce voilà amul ay risques aussi ci ci côté boobu. loolu aussi point yi nga xamante ne dafay avancé pour SAR la gën a concerné. dafa am point yi nga xamante ne dafay évoluer mais suivant contrat. contrat boo demee ci article 15 bi am na responsabilité bu mu jox état te comme li may waxaat aussi. ñoom moomuñu lépp ñun dañoo wax partage ku wax partage mooy séddoo. Mhm. kon dafa am na ñu dañu ci am marge de manœuvre ñoom mënuñu imposer lu neexul tey Sénégal quelle que soit la situation Sénégal nag c'est vrai dafa sax anticiper am lu mel ni société africaine de raffinage mhm. avant muy am pétrole te tey li muy jël di ko jëndee su mel ni ay Nigéria pour di ko transformer pour ñu mën ko utiliser si société SAR lay jaar mhm. et donc techniquement nag bi ñuy produire boo ko extrait au niveau du jugement kenn mën mënu ko utiliser directement au niveau des raffineries yi looloo tax ñu am ay installation yu mel ni ay FPSO donc premier pré-traitement bi foofu lay nekk ci loolu c'est juste pour dissocier le produit et les impuretés foofu nag dafa am aussi ay yàqu-yàqu yu am solo yoo xam ne mën na jural problème ci wàllu environnement en termes de pollution voilà mhm. léegi euh, ba léegi ci enjeu économique yi euh, fa ñu taxaw aussi ci loi sur le contenu nga xam ne ni déjà mais d'œuvre nationale bi yooyu yëpp euh, fa la war a jaar est-ce que tey jii Sénégal gis na boppam ci euh, loi bi nu ñu ko tëddee. li ngay wax aussi nekk na lu am solo parce que mënuñu am une loi mais aussi ñu poser question ndax loi bi productive na walla. parce que comme duñ koy wax naa les pièges une loi surtout pour le contenu local peut ne pas être productive pour un pays. Mm-hmm. raison boobu dafa war a tax. ñu maximiser ñun suñu ay politique sur la préservation de l'environnement et de la pêche compte tenu du secteur ndax gis nañ ni pour ñu permettre loi continue euh, loi continue locale mu am doole mooy dafay fekk suñu ay entreprise nationale mën a capter ces types de marché mais ñun gis nañ ni projet yi ñu am c'est de l'industrie lourde kenn mënu ko maîtriser globalement et que tey nous sommes trop trop en retard pour répondre les besoins de l'entreprise okay. raison pour laquelle ñu mën a sax signer ces types de contrat yi ñu ñuy wax contrat de partage de production mais boo demee comme ni nga waxoon léegi ci lu mel ni ay Arabie Saoudite ñooñu dañu am ay réserve yu wóor mhm. seen réserve yooyu soxlawul ñuy def sax contrat de partage de production ils ont juste besoin de signer ay contrat de service mhm. da leen di liggéeyal ba pare ñu fay la ñoom ñu jël seen ressource ñoo ñu ciy def mhm. mais ñun comme que ñun investissement bi dafa am doole te xam même bu ñu ko bàyyi woon ni Sénégal mënu ko exploiter boppam il a fallu que multinationales yi ñu ñëw kon ñun foofu la ñu war a mën a renforcer suñu niveau xam ñu bañ ñu nax ci benn côté. maanaam ñu renforcer négociation bi de telle sorte que dina nekk benn win-win. Mm-hmm. mais déjà dañoo fausser un peu le mais aussi il faut le comprendre parce que c'est lié au contexte. Mm-hmm. ndax tey bu ñuy wax cas au Sénégal il y a parce que après les découvertes 2019 on a fait une révision. Euh, du du de, de comment dirais-je de la cartographie pétrolière. Mhm. qui tend de dix dix huit à dix neuf pour aller jusqu'à vingt neuf blocs. vingt neuf blocs yooyu tey yi nga xamante ne mën nañ ko considérer sa ne dépasse pas six blocs. Mhm. kon ratio bi est trop faible. kon ba léegi ñun ñoo ngi ci point de départ bi. Mhm. alors que à ce niveau état aussi a fait beaucoup de choses. le gouvernement tey bi fi génn anticipé na ci point yu bëri pour mettre en place un arsenal. parce que réviser na code yi. lu lu xaw a gën a jafe réviser nga sa code pétrolier parce que aussi ça se comprend parce que bi ñuy njëkkee négocier yow amagoo dara mënoo exige mënoo nekk acteur principal du jeu mhm. il fallait donc nga yombal pour gars yi mën a dugg si loolu aussi da nga koy comprendre lu tax ñu am sax 20 pour cent yi mhm. maanaam boo amagul dara gars yi mënu gu ñu intéressé wu si yow donc da ngay créer stratégie léegi am nañ nga ñëw corsé le seul problème mooy lan moo ñu leer luy ñëw suba mhm. xamaguñu loolu aussi mu nekk jeu ndax su fekkee yow def nga recherche plus de 72 ans ngay soog a gis jugement bu rentable lan moo ñu leer ni fukki at wala ñaar fukki at wala juróom fukki at yu ñëwaat mën nañu am on ne sait pas. Mm-hmm. donc moo tax bu ñu dee wax waxu négociation man ci côté boobu laa koy xëcc xool lan lañ ci mën a def. Mm-hmm. avec les multinationales ñu xool ñoomee ñun lan lañ ci mën a jëriñoo ndax lu tax ñu war a gën a insister ci point boobu. Mm-hmm. mooy ñun gis nañ ni côté contenu local bi marché yi gën a am solo niveau national capté wu niveau continental capté wu des fois sax entreprise ñoom ñooy amaat seen ay filiales ñoom ñoo ciy bénéficié ndax poser la bi si on investit 3000 milliards supposons est-ce que au plan national mën nañ ci capter jusqu'à 500 milliards. Mm-hmm. c'est une question. c'est une question donc apparemment 2500 yëpp ñeneen ñoo ko profité. Mm-hmm. ñun mënoon nañu amal njëriñ mais da nga koy comparer par rapport aussi à la rentabilité du projet. ndax mm-hmm. projet boo gis da ngay mesurer avantage. coût bi lan la avantage lan la la mën a jural. ba pare nag ñu am ko ci milieu bu xaw complexe te tey lépp li ñu mën a def di gis naa ne foofu aussi gouvernement bi war na ci mën a gën a jël ay ay jéego problématique majeure moom la commence di dund nii avec le secteur de la pêche ndax defuñu exploitation onshore offshore la ñu am boo dellu see déjà si liy xew au niveau de GTA concept déjà bi ñu proposé rek am na ci benn part bi nga xam ne dafa occuper zone principale de pêche ñu ngi créer déjà ay conflits lan la ci état taxaw tey pour répondre mhm. wax gu ci lu leer donc problème yooyu moo war a nekk tey réflexion yi nga xamante ne war nañu mën a am justement main d'œuvre main d'œuvre locale dans l'exploitation du fan lañ ci toll est-ce que on a pris les devants euh, anticiper nañ euh, ngir ñun tamit ñu mën ci euh, jëriñ bon c'est vrai que ki jiite Woodside nee na déjà quatre mille quatre cents Sénégalais ñu ngi ciy liggéey par exemple parce que pour ñu mën a jëriñoo trop sax ci main d'œuvre bi da ngay fléché secteur bi parce que exploitation pétrole in bi soxlawul nit ñu bëri parce que c' est de l' industrie lourde tout est mécanisé tey les plateformes ne vont pas prendre beaucoup de personnes parce que lépp machine a koy def kon ñun pour ñu mën a créer de la valeur mooy il fallait ñu dem ba tàmbali exploiter ñu jël rente boobu ñu mën ko orienter sur d' autres secteurs à moins que par rapport aux investissements aussi dafa am benn durée de vie ndax il le cycle de vie du projet am ay phases yoo xam te moom mooy créer emploi bu ñu fa jógee emploi day wàññeeku te phase bi gën a am solo ci création d' emploi mooy phase bi ñu toll war a jëm ci production mooy phase de développement mais phase de développement dafa am benn durée bi muy mesurer de 1 à 3 voire 5 ans maximum comment faire donc pour créer et garder les emplois donc loolu ci beneen niveau la moo tax ñun li ñu mën a xam mooy ressources yi am na solo mën nañu jural njëriñ ñu ngi ciy teg ay stratégie di xalaat créer waat beneen raffinerie pour mën a traiter suñu ressource bopp mais demaat également ci industrialisation comme ni nga ko waxee on a plus de gaz gaz mën nañ ci def tey engrais boo xamante ne mën na servir peut-être agriculture alors que le secteur primaire c'est l'agriculture et l'élevage donc nan la ñu mën a profiter de ces ressources pour mën a Euh, accompagner mm-hmm. ces secteurs là de façon durable. booster d'autres. mais surtout le côté énergie ndax ñun dañu am benn défi bi nga xamante ni défi défi énergétique la mooy accès énergie à tous dafa poser problème. peut-être xalaat na ni foofu aussi avec l'exploitation des hydrocarbures war nañ mën a combler bi mhm. moo tax ma gis ni ressource la yoo xam ne am na solo mais li ci ëpp njëriñ mooy nañu xalaat nan la ci mën a profiter surtout si partage bi ñu bañ ñu lor trop trop ci partage bi ndax négociation yi xëy na yamuñu capacité de négociation yi aussi bokkul mhm. ñoom ñoo ñu ëpp xam-xam dañ koy accepter mhm. mais nañu renforcer waat donc ñun suñu ay capacité si stratégie yi nga xam ne ñu bëggee nax ñu xam ko voilà foofu man pour man mooy défi bi. voilà merci merci Abdou Guèye euh, explication yi euh, leer na am na solo. Euh, ñu lay jaajëfal moom mi nga xamee ni environnementaliste la spécialisé en gouvernance des industries extractives jërëjëf monsieur Guèye da ngay toog da ñuy gunge ñu dalal gan gi yegg si na léegi Apulaay jingal laata ñuy ñëw ci Boubacar Seye